Salut les amis de Baba Show et de eSport TV. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés. Merci également Gaël de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Box sénégalais fait folle maintenant 14 régions du Sénégal. Roukhoukhari, Gorgokhari, ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire génne nañu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëdoo àdduna suñu borom xal leen àddina fi daw si gaay te ñu on avance ensemble dans la magie de Babo Show et de eSport TV. L'actualité en contenu, Tottenham Fazen Wartani, DJ Drogba qui envoie un message de soutien à Nicolas Jackson, les deux entraîneurs, grandement Abibé, et également Kiri Youssouf Dabo Fazen Network, l'Inter de Milan avec sa deuxième étoile, Vinicius Junior, Migranda Moy Cagno, wa FC Barcelone, les plus Fazen Kouassare. Mais gars, est-ce que vous savez, ñaari équipe nationale rek ñoo mësa jouer Coupe d'Afrique te encaissé wuñu bi Oui, Côte d'Ivoire 92 ca Sénégal ak également ñii di Cameroun en 2002 ñooy équipe yi nga xam joué nañ ba championnat bi jeex ba compétition bi dire encaissé ben but. Pendant ce temps, Ricardo Caca le joueur brésilien passé par Milan AC et également par le Real Madrid gisquelko a ko ak njabootam de fête anniversaire de Ricardo Kaka ak soxnaam ak ñetti yi jigéen euh, pendant ce temps euh, ki nga xamne la complicité entre Onana ak kii di Idrissa Gana Gueye nga après bi gars ko célébré hein. donc gis ngeen ko les gars qui ont célébré célébré Idrissa et son but marqué bien évidemment le milieu de terrain défensif de l'équipe nationale du Sénégal pendant ce temps Filippo Inzaghi morna fier de son petit frère qui Simone Inzaghi nga xamné nak mo gagné ak Inter de Milan le Scudetto ah, la la ah, la mayonnaise a pris orchestre bi dox pour prendre bien évidemment cela et donc la deuxième étoile du côté donc de l'Inter de Milan les ñaari étoile moo nekk seen i maillot waxoon les dix dix trophées yi jël championnat yi jël pour mon âme am étoile donc aujourd'hui l'Inter de Milan au également rendez-vous avec ces deux étoiles les Mayo bi da nga gis ñaari étoile gis ngeen fi benn benn étoile woon ak ki nga xam Martinez bi nga xam ne moom nee na fi mu ne nii euh, am na dina donc du côté de l'Inter le la bëgg et comme il se sent bien là-bas donc waxtaan mi ngi jëm te que il est il a confiance à cela bien évidemment jëm nak ci ki nga xam moy donc Simone Inzaghi wax naa ko en tant que joueur ñi ko mën ñu am chance setan setan ko du côté de la Lazio de Rome pendant ce temps frère Mekon du côté du Milan AC c'était un excellent joueur On a lépp la en tant que joueur jël na en tant qu'entraîneur du côté de l'Italie super coupe Italie championnat Italie et tout le jeu. Inter ak nga xam nak Milan ni wa Inter ak Milan nombre de coupe d'Italie Inter à 9 Milan 5 super coupe euh, Inter 8 euh, Milan 7 euh, Ligue coupe du monde des clubs Inter Ben, Milan Ben bien évidemment qui a donc Luciano hein, qui est plutôt Pioli hein, Pioli laa donc l'entraîneur du Milan AC moom nag moo nekk entraîneur bi nga la première fois de l'histoire de l'Italie et du Milan AC mu les six matchs consécutifs à l'inter Inter du coup daal perte moom nag fini ne ni on a une fois nag Romano nee nañ euh, fin de saison moom kenn du contre contrat mais également <clears throat> ngeen Inter de Milan donc qui continue à dominer actuellement ces dernières années ni le championnat italien le Milan a gars yi nak nag ñoom temps yi moom ci surtout ah, avait un peu changé mais ren et qui nak di Vinicius Junior di ou à FC Barcelone comme rek après match bi euh, Vinicius Junior dans di di wax ne rek ne Bellingham bu gay nañ célébration du duñu mom du ah, ah, era Bellingham il croyait qu'il était euh, qu'il sera Jude Bellingham moo ko gis ngeen ko muy wax rek Fermin Lopez de wax ni dadi Mario Moko Bina bind venu Vinicius ñoo mu di koy euh, aimé qui dit di Didier Drogba Modadi envoyé message à King nga Nicolas Jackson sur sol numéro 15 hein Didier Drogba la légende des Blues de Chelsea dit encourager dit également supporter King Nicolas Jackson Lily la ko Neko, keep your head high up and never stop working hard it will be it will pay off hein, it will pay off mu ne baisse jamais la tête en hein, contenu voilà mon gars dina dina mës a baax un ngoog ah hein, bul mës a sëgg wax et pendant ce temps Youssouf Dabo également qui ramène Abibé actuellement ce sont les deux meilleurs entraîneurs qui championnat bi sans oublier également Omar Daf mais Youssouf Dabo nga xam ne joxaan nañ ko entraîneur du mois wax naa ne ko ca Tanzanie avec Azam FC nga Fonyo dafa ñëw concurrence des clubs yu mag yi fa hein. mais également Abibé Beye mi nga du côté Red Star il est bientôt il sera bientôt sacré champion loolu lañ koy mais également yóbbu na leen ñu yëg de Ligue 2 gars yi li ma nekkoon information yi ngeen bëggoon jox ci wu di jégalu ci retard bi xam ngeen rek ma ngoog bëgg leen chaque fois leen jox information yu différent su baax yi ci yella bonus ñu la jàngeen